ndaje fu mu am xel dem ci lii jiitu maanaam hygiène ak ndox rawatina nag màggal surtout màggal boo xamante ni euh, Sénégal yëpp kan amoon ndax tamit kenn umpalewul ni 2019 euh, bi fi li nga xamante ni moo di mbas mi dugg see woon lépp rek la suñu xalif daal di ñuy euh, tënkal daal di ajandi ko maintenant nag ginnaaw ba mbas mi jógee fii loolu la ñu mën a wax ñun ñu indiwaat li nga xamante ni moo di màggal yi. tey nag ñuy màggal màggal ki nga xamante ni moo di sëñ Abdou Ahad Mbacké mu nekk màggal gu rëy ñu nekk ci ëttu doomam bi nga xamante ni moo di Serigne Moustapha Mbacké eh, ginnaaw commission yi nu jot a jaar eh, ginnaaw daayira yi nu waxtaanal ak it fédération bi liggéey gi nga xamante ni am na solo gi ñu def ci màggal gi te ñëwal ci doomit eh, leeral ko askan wi ñu ngi ak commission bu am solo di hygiène et hydraulique wala hygiène ak distribution de l'eau xam naa sama xarit bi nga xamante ni moo ma dalal tey fii ci euh, kër Serigne Moustapha Mbacke laay bàyyi rek mu waxtaan ak sunu jëwriñ yi. asalaamaaleykum wa rahmatulah téléspectateur Bichri TV ñu ngi leen di nuyu Bichri TV àndandoo ak communication bu fédération Saadatul Mouridina li xidmati Seexul Xadim ñu nekk fii ci kër Serigne Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdou Lahad tey ji mardi le 24 mai 2022 ci bisu màggalu Cheikh Abdou Lahad ni ko waxee soxna Ndak Mbacke ñi ngi fii nag ak waa commission hydraulique ak hygiène. di tuddee ko Aïssane nag sëriñ Mor Mbeng moo ko jiite mu ànd ceeg sëriñ Moutala Gaye waaye mbooloo mi ñu taxawal ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi li ñu def mooy dañuy jox kàddu gi Baye Saliou Touré mu leeral ñu commission bi kañ ngeen tàmbali woon seenub liggéey ak lan ak lan ngeen di doxal ci màggal gi. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen waa Bichri TV ñoo ngi lay nuyu di am mbégte ci dalal leen ci sunu siège mi xam ne ñëwer wàllu hygiène ak ak lépp loo xam ne mu jëm ci wàllum ndox ci kër si Moustapha Cheikh Abdoulaye lépp loo xam ne mooy xeetu malit ak lépp loo xam ne nu ñuy defaree dali ba bu gan ñëwee mën a euh, màggal ci màggal gu euh, méngoog jamono ku a màggal nag bal naa mën a màggal euh, sa bërëb day sell sa bërëb du taq ndax et puis tamit jamono corona bi ñu jógee day laaju hygiène moo tax moo tax te liggéey bi ren ñu soppi ko boole hygiène bi ak ndox mi si loolu nag sunu jëwriñ Baye Mor Meng depuis bi màggal gi desee 20 jours ba tey euh, amuñu jàmm ndax ku ne màggal xam ne mbooloo mu bëri moo fi ñëw te mbooloo fu ñuy daje day ajo te taxawal commission yu nasu nasu ci liggéey ba kenn ku ne parce que bi la jox doo ko suuxee si loolu nag liggéey bi bi ñu ko commencé 20 jours ak 20 jours euh, avant màggal la si loolu nag commission yi ñu ñu ñu nas ko nasin boo xam ne lu wër kër sëñ bi. doo si gis benn muus buy takk doo si gis fenn foo xam ne dana ko xool di ko seexlu ci loolu nag ñu ànd si membre yu bëri waaye lépp nag suñu jëwriñ Baye Mor Meng moo ñu ko jiital wan ñu nan la ñuy liggéeyee rek. mais nag si loolu nag wàllub wàllub hygiène yi li mu nekkee sëñ bi ak euh, moom ak euh, mbedd mi ak fi xam ne gan yi di di nga koy soxla ñu koy defar ba xam ne benn muus du ko gis euh, néew néew ma loolu yombut mais si màggal. ñu ngi moom euh, mbedd mi ak li ko wër muus doo ko gis lépp ci ay commission yu nasu la euh, pour wane euh, exemple ginnaaw ñoo jóge ci ci wàllu corona lu mel ni Covid 19 il faut que ñu defaraat liggéey bi ba lépp loo xam ne wàllub hygiène la ñu taxawaay si def si suñu képp lay kàttan si wàllub hygiène boobu noonu mu tontu la ci. jërëjëf Baye Saliou Touré kon Baye Mor président commission hygiène ak hydraulique moo taxaw nii. Baye Saliou Touré leeral nañu ak pàcc ci Hissène ak hydraulique Baye Mor ndox mi ñu bëgg a xam ndax day jóge ci fédération bi wala ci ay jaayante wala lu mel ne mbànn ndox yi ci aju yëpp rek ndox mi fan ngeen koy toppatoo ba man koo tasaare ci mboolem gan ñi. bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuuba bu gën ma asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu waa Bichri TV ak ñi ngeen lëkkalool ci wàllu communication bi ci direction fédération bi di leen jaajëfal surtout ñi ko jiite di rafetlu liggéey bi di leen jaajëfal bu baax ak di leen jéglu ci coono yi ci tënk ci ni ñu laaj ci wàllu e, li jëm ci wàllu ndox mi commission bi dafa boole hygiène ak hydraulique maanaam e, ñiy setal waaye di waaye du yoraale ndox mi. mel na ñaaro yi boo koy xool sax mënta ko kuy setal foog nga gànnaayoo ndox wala wala wala foog ndox doon sa jumtuwaay euh, ba tax na ni ñu ko tëralee noonu rek la ñi yoreel setal ci kër gi yëpp ak dal yi ci màggal gi ñoom tam ñoo yoroo méngoo di yore ndox yi di ko fàggoo ci fànn yëpp muy ndox yi ñuy jëfandikoo ci wàlluk naan ak yi jëfandikoo ci wàlluk euh, sangu ak jàpp ak ci ak i raxasu ak yëpp ñoom ñoo ko ñoo ko méngoo ñooñ nag mooy commission bi rek toll nañ ci daanaka soixante personnes euh, cinquante huit la loolu toll toll na ci bu ko defee nag ñoom ñoo ñoo méngoo ndox yi ci dal yi di ko servir am ay ñoo xam ne ñoo fa féete di toppatoo gat ñi bu dee ci biir kër gi am ñoo xam ne ñoo ko yore ba ci waañ wi ndox yi waañ wa ak yëpp bépp ndox boo fi dégg rek lu ñuy jëfandikoo ca waañ wa ak ci fu mu si doon ñoom ñoo ko yore ci gàttal. Euh, kon nag loolu nu xamee ko noonu ni fédération bi moo ko tërale noonu euh, bëgg màggal gi jag ci fànn yëpp te loolu mën a jëm nag mooy kenn ku ne dañ koy jox dara féetale ko ko ba noppi di ko saytu kon nag loolu ci gàttal sëñ maam góor di jaajëfal commission bi yëpp ndax jàmbaar lañ lool am positif lool akuk bëgg akuk dogu ci liggéey bi di ñaan ñun ñëpp daal ñu daje ci ak ngërëmal sëriñ bi di xam le ne daal liggéey bu rafet lañ ko liggéey bu rafet bu ànd ak yar ak teggin ak pësteef eh, di ñaan nag ñu daje ci ak ngërëmal sëriñ bi jërë ngeen jëf di sant bu baax tam ci kàddu yi jëkk eh, jàll eh, sëriñ Saliou Touré leeral ko ci li gën a jëm ci wàllu ISEN nga xam ne moom daf cee yàgg torop nekkoon secrétaire bi maîtriser ko loolu itam ni mu ko waxee rek noonu rek la demee lu mat juróom benn at bay bëgg a jege juróom-ñaar eh, eh, eh, bi mu nekkagul hygiène hydraulique li nga xam ne assainissement rek la nekkoon la nekkoon secrétaire bi kon lép lu mu ciy leeral rek noonu rek la kon ñi ngi leen di jaajëfal baax jërë ngeen jëf. jërëjëf Baye Mor Mbengue président commission hygiène ak hydraulique ci fédération Saadatul Muridina li xidmati Seexul Xadim leeral am na solo waaye Baye Saliou Touré moom it njëkk ñoo indil ay leeral jërë ngeen jëf taxawaay bi am na solo lool.